fii ci marché Ocass bu Touba lakk gu métti moo fi am guddeeg biig ci booru xaaju guddi ba ni bët setee la waral googu la lakk nag lañ ci mën a jàpp mooy branchement courant bu jaarul yoon commerçant yi tiis yi dal seen kaw yëkkat nañ ci ay kàddu. loolu jaaykat yi ñoo def problème bi léegi nag alors la lor nañ seen bopp loraale ñeneen am yoo euh, waaye jël ab tali def ko nii mu leer ni vraiment lu ne mën nañ ko bu amee donc mën naa dem ba jéggi dayo ay ndaw yu doon xosulu ñii di leb ci banque yi ba doon am yaakaar mu xëy na duru tàkk ba jeex ñu joxañ baaraamu tuuma le maire de Touba. parce que depuis ba affaire yi tàmbalee ba léegi ñoo leen gis seen taxawaay. Euh, ñuy def leen war ñu leen sant bu baax. parce que man mii di wax ni yow nii samay bagage ba te jii mënu ma laa wax fu mu nekk di wax rek gars yi ñu jàppaat ci affaire yi xam ni marché bi comme ni ko saa waxee rek marché bu mag la tey ñiy génn dem ci réew yi di liggéey di dem ci ndox mi di dee boo xoolee euh, li ñu dund fi rek moo tax. parce que dañu gis xale boo xam si ne tey fi ma nekkoon nii xale yoo xam si nii li amoon lépp def nañ ko ci taabul teg ñu xëy suba bu ñëwee seen weñ sax duñ ko gis. met na trop. Abdoulaye Ka Abdoulaye sol sol sol mbaa am liggéeyu fi dara loolu man maa ko wax. fii borom junni ak borom ñaari junni parce que lépp ay millions ñëpp ñëpp si la ñuy xëy la sutura du mu ñu fenn Sénégal lañ nekk tout le temps si la ñuy nekk di rey seen bopp bëgg de maanaam booy boo xam ne si 4 millions la jënd bagage mais xoolal lépp jeex na dara di sut bu ñu Ka Abdoulaye Ka Abdoulaye Ka nañu dimbali li lay war sol waaw man fekk naa lépp la ka ndax dañ maa woo damaa nekk si yoon dañ ma woo sama benn client bu ma daan jaay moo ko dégg woo ma dama laaj bokk naa sol bokkuma man nag man damaa génnoon mais xamaguma wax bokk naas après léegi ni ma dendoon place ma woo leen téléphone ñoom ñu yëgulu ko mais bi ñu ñëwee noonu ma excellent mais fekk naa place bi lakk da gàtt gàtt xayma naa daan bi ma mujjee quelqu'un quelqu'un noona ay 7 millions nangam te li si nekkaat si bagage